bi nu fas yéene euh, tàmbali suba nu ñëw fii jullee si fi tisbaar ba ñuy génn ba agsi fekk fii imam As imam As dafa nañu sëriñ bi léegi mu ñëw ma ne ko sëriñ baa ngi fi waaw ndax xam naa seen diggante yéen ñëpp kun fi fekk rek fekk nañ fi sëriñ bi ñu dalal ñu ci anam bu mu gën a rafete moom ci boppam tàmbali woon am lu mu doon leeral lal ñi teewe jataay bi ndax dafa am ku ne ci jataay bi laajte diggante ñaari nataal yi ma ma wax ko ci lima ci xam waaye jàpp ne ah jege ma jàpp ne kilifa yi fi nekk su kàddu yooyu jógee ci ñoom xëy na mooy gën a xóot gën a leer te gën a matale mu nekk xam-xam ci ñi fi nekk ndax nag ndaw loolu moo koy yokk te sax nag yoon wii nuy dox lu mel nii lañ ci ëpp luñ ciy xeeñtu ndax barabu diine bu ñu romb ci yoon wi lijjanti wuñu la barabu diine bu ñu romb ci yoon bi ah, dañu fay dem gëstu ko xeeñtu ko te at mu jot ñu fexe defe ko nii di di fa di fa di fa siyaare lu neexoon nag sëñ Alaaji Baara sëñ Cheikh Sidil Maxtaar maanaam loola bañ ca tolloo ak ñoom nan ko doon fësale neex boobu mu leen neex dafa tax ñu gën caa mooy lëkkale boobu waaw euh, mu doon leen leeralal nag diggante maam El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène ak mag ñi fi jiitu woon mm-hmm. waaye rawatina ak Cheikh Amadou Bamba bi mu jaaree fii ci Thiès ci lañ toll ngeen di agsi kon mel na ni yi xew yëpp ak ni mu xewee dara génnu ci euh, li nu yëkkati bi nu jullee tisbaar ba noppi jaar nañu ci barabu kilifa yi nu ñaanal nu fa maam yóbbu nañu fa euh, ñu def ay ñaan ñaanal leen Euh, suñu borom yokk seen leer waaye te it ñaanal fa mbooloo mi nga xam moom la ñu àndaloon waaye it ñu wiiru ca loola di la ñaanal nga yàgg fi loolu te waaw loolu daal mooy li nga xamante ni moom euh, moo sabab ñëw bi suñu borom booleenu ak yéen nag lu yàgg ñu jàpp ne suñu bëggee jóg di def ay jéego yoo xam ne dafa war a jëm ci wàllu diine te war a bawoo Thiès faaw ñu pëndal sunu tànk ba ñëw fii